faut dire que nous sommes venus rencontrer euh, le porte-parole du Khalif général des Tidjanes, Seigneur Abdoulaziz Al Amin, euh, pour le remercier pour son implication dans la recherche de solution mais également pour euh, faire notre ziara en, euh, en ce mois béni de, de, Ramadan. Mais lui avait sollicité la rencontre surtout pour également nous remercier d'avoir accédé à leur euh, demande de suspension du, du mot d'ordre, mais nous montrer également que euh, en s'impliquant dans cette crise, leur volonté était de trouver une solution définitive. Euh, ils nous ont fait, ils nous a fait part du plan d'action qu'ils ont élaboré en accord avec l'ensemble des familles religieuses parce que encore une fois, ce qui c'est la stabilité durable du système éducatif. Il nous a également fait part un peu des propos qu'il a échangés avec le président de la République et des engagements que celui-ci a pris. Et enfin, il a conclu que l'espoir est permis d'aller vers une euh, solution non seulement définitive mais durable de la crise scolaire. Et nous lui avons réitéré également toute la confiance que nous avons. Et il nous a prodiguer des conseils et des orientations et formuler de ferventes prières. Il a également demandé aux poursuivants de la paix d'arrêter les exactions sur les enseignants. Oui, en fait, nous avons profité de cette audience également pour lui faire part euh, de l'existence de fossoyeurs de la paix dans l'espace scolaire. Parce qu'il s'est trouvé d'ailleurs dans son salon, euh, euh, des collègues de Matam nous ont appelés pour nous dire qu'ils ont reçu des convocations de la gendarmerie. Nous avons simplement demandé aux camarades de rester sur place et de ne pas déférer à, cette convocation-là. Et c'est ça aujourd'hui notre position. On ne défère à aucune forme de convocation et on ne prend aucun document allant dans ce sens-là. Donc euh, il en a été euh, très choqué et je crois qu'il va s'adresser à qui de droit pour que, encore fois, les fossoyeurs euh, arrêtent leurs euh, agissements parce que nous avons encore une fois accepté de suspendre le mot d'ordre à la demande de ces autorités religieuses. Sans condition, c'est juste une concession que nous avons faite. Donc euh, il faudrait que tout le monde aille dans ce sens-là. Parce qu'autrement, on aurait pu agir euh, de la même manière que le gouvernement. Et à part de ce moment-là, il savait qu'on allait vers une impasse qui n'était pas souhaitable pour le Sénégal. ñoo ñëw tey fii ci Tiwaawoon pour euh, ndokkeel sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amin ziyaar ko gërëm ko ci jéego yu mu dox da euh, jàmm dellu si ci njàng mi jàmm dellu ci ci réew mi euh, bi ñu ñëwee nag nee nañu loolu wareefam la ndax njabootam la te moom dafa bokk ci réew mi kon nag loo yëngu ci njabootam war na ci jóg dox ci tànku jàmm euh, mu ñuy xamal ni tamit euh, bëgg na ci jàngalekat yi bëgg na ci syndicat ndax euh, ñoom tamit sagal nañ leen ndax ñun bu ñu ñaanee dañu ne lépp loo xam ne jàppoon nañ ko ci grève bi dakkal nañ ko nee nañu collègue yi ñu delloo notes dem ci conseil de classe yi commencé waat jàngale mu ne loolu bëgg na ci lo trop te mu ñuy ñaanal di ñu gërëm euh, ñaareel bi nag nee na dox jéego yi mu dox dana continuer di ko ci dox ndax loolay waree fam ndax loolu du guléet ci fii Tiwaawoon jamono Alaaji Malick Sy bi mu amee jafe-jafe Dakar taxaw na ci dox ci ba jàmm ñëw jamono Seydi Ababacar Sy jafe-jafe bi mu amee Thiès taxaw na ci sëñ Abdoul Aziz Sy Malick Dabakh loolu ñëpp a ko xamee lu xew ci réew mi mu jóg pëndal tànkam dox ba jàmm ñëw yàlla na yàlla yokk leeram kon nag moom tey ci tànk yooyu la ne te wéetu ci ndax moom ak waa Touba. ak sëñ Abdou Aziz euh, sëñ bas Khadre porte-parole du xalif général des Mourides sëñ Sidi Mokhtar euh, mu ne mu ngi leen di gërëm gis na ñoom tam jéego yuñ ci taxaw te dana ci boole këru diine yëpp ñu ànd ndax jàmm ñëw ci njàng bi ndax euh, ab réew njàng ko yor te nag foog ñu waxtaan te ñaan na nguur gi tamit. Euh, mesure xupp yu ñuy def ndax bu jàmm ñëwee moom euh, nit warul def leneen lu dul dox jàmm mu ne nguur gi lépp loo xam ne ñu ngi koy doon def nañ ko dakkal arrêté ko ndax ñoom lu ñu jóg nii duñ ci tàyyi duñ ci sonn faw ba jàmm ñëw ci njàng mi jàmm ñëw ci réew mi ah ñun nag ñu bëgg si aussi profito di jaajëfee euh, sëñ Abdou Khadre Bass di porte-parole du xalif général des Mourides ah di gërëm suñu waajur xalif général des Mourides di gërëm sëriñ si Djamil Mansour Serigne Mansour si Djamil di gërëm le médiateur de la République Alioune Badara Cissé gis nañ taxawaayam jéego yum ci dox ba jàmm ñëw di gërëm association des oulémas et imam du Sénégal te oustaz Moustapha Gueye jiite ko di gërëm tamit euh, Castro te mu jiite comité national dialogue social secteur éducation euh, di gërëm euh, Mamadou Diop Decroix di gërëm président Malick Gakou di gërëm président Landing Savané waaye di beral ngërëm ak cant suñu jigéen suñu xarit suñu mag di honorable député Hélène bi mbir mi xawee ba léegi jóg na dox na ndax Tiwaawan bi mu ne mi ne ma danaa jóg lépp lu ma mën danaa ko def ndax jàmm ñëw ñëwoon na fii fii àndax suñuy représentant gis sëriñ bi tey dellu si na àndax ñun te nee na tant que jàmm ñëwul moom du am jàmm ndax jàmm Sénégal mooy jàmmam di ci boole nag di gërëm organisation syndicale yi yëpp muy SAES SAMES ñëpp ñoo xam ne taxaw nañu jàpp ci wax ci sëriñ bi nag nee nañu a ah, dafa am ñoo xam ne nag buñ sañoon jàmm du ñëw ci njàng mi dafa am ñoo xam ne tey bu ñu sañoon daay bi du jeex mu ne ñooñu bu leen déglu lu am solo mooy ñoom kilifa diine yi di suñuy waajur taxaw nañu dox nañ ci ay jéego danañ ci continuer dox ay jéego danañ ci wax te danañu fexe ñun ñu toogaax njiitu réew mi waxtaan pour jàmm mën a ñëw ci njàng mi Euh, loolu daal la ñu mën a wax ci gàttal la ñu jëlee ci kii bi. dañu bàyyi di leen woo leen leen xoñu ñoom waaw wax na ko nee na euh, autorisa kii yi ñuy joxe convocation yi ndax euh, bu ñu waxtaanee ba dakkal grève ba lépp jeex lu ñuy lu ñu jaaxal mooy lu ñuy jox nit demande d'explication di ko laaj lu tax ngay grève ku ñuy laaj grève mooy kuy grève mais grève bi defe naa dakkal nañ ko léegi kon nag dafa am ñoo xam ne tey jàmm la ñu bugguñu jàmm ci réew mi. ñaareel bi nee na tamit convocation yi gendarmerie polis nee na loolu yëpp nañ ko dàkkal te ñoom kilifa diine yi ñëpp moom ak waa Touba ak kilifa diine Sénégal yëpp danañ ci ànd dox ci parce que nag nit ñi bu ñuy dox jàmm am na ñoo xam ne amuñu droit di fexe yàq loolu moo tax mu ne ñooñu kenn du leen déglu te seeni pexe du antu parce que ñoom dogu nañu ñaan nañ ko te incha allah bu neexee yàlla jàmm dana ñëw parce que jàngalekat yi nag. li ñuy wax rek laajuñu lu bees laajuñu lu kenn amul dañu ne nguur gi yow yaa dige woon yaa ñu yoreel ay bor li nga dige woon na ko jëfe bor yi ñu yoreel na nga ko fay ñaareel bi mooy lépp lu jàngalekat yi def waroow ñu ak yoon ci yoon lañ ko teg ndax sart réew mi moo ñu may ñu dem grève loi 61 31 moo ñu ko may kot di travail moo ñu ko may Sénégal ratifié na ay convention kon nag lépp lu ñu teg ci yoon lañ ko teg kon nag ñooñu tey defe naa ni dañ leen war a jaajëfee parce que ñoo xam ne ñooy tabax ëllëgu réew mi ñoo yore formation jeunesse bi ñooñu lu ñu leen yoreel mooy ay jaan leen war a jaajëfee décorer leen waaye war ñu leen jox ay réquisition di leen convoqué ci ay gendarmerie moo tax mu ne moom euh, sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin am na yaakaar te mbir mi du ci wéet ndax moom ak sëriñ Abdou Khadre Bassirou euh, porte-parole xalif général des Mourides moom ak waa Laayeen moom ak waa Ñaseen moom ak waa Njaasaan moom ak kilifa diine Sénégal yëpp dana leen yëgal ñu waxtaan ndax jàmm mën a ñëw ci école bi ndax jàmm bu ñëwee ci école bi jàmm dana am ci réew mi te loolu mooy njariñu réew mi mooy njariñu askan bi mooy njariñu élèves yi mooy njariñu parents d'élèves ma leen gërëm leen sax